borom yàggal ko fi loolu mu ànd ak weer defal ko jàmm defal ko njabootam wis ko si biir këram te koy ñaanal mboolem xalifi ci biir réew mi yëpp euh, di nuyu nag euh, internet yi euh, di wax ne nag saay su nekk rek mbégte la ñuy am ànd ceek expert bi di Sanjoogu Meng <laughs> ma koy nuyu di ko ziar di ko ñaanal jàmm bàyyi ko mu nuyoog amee internet alaaji kàddu gaa ngi noonu. di nga expert xam nga loolu moom. <laughs> Ah.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 waaye aussi di nuyu yi nekk ci biir réew mi waaye mën a nekk ñu ngi nuyu ñëpp di am ci ñëpp mbégte ak kontante di nuyu it suñu mbokk gambien yi waaw xam gambien yi moom wax dëgg fa yàlla euh, tubaab bi doon rëdd frontière dafa juum parce que Gambie moom ak Sénégal euh, boo seetee peuple yi benn lañ koy dund mu nekk loo xam ne lu am solo la <clears throat> man moom awma différence bu ma gisee Gambien wala bu gisee Sénégalais pour man ñun ñëpp benn lañ waaw Gambien yi tamit wax dëgg fa yàlla ñu nekk ay nit ñoo xamante ne bi ay nit ñu baax lañ aussi tamit nekk nit ñoo xamante ne bi daal nit ñu ma naw lañ parce que euh, ñu rafet jikko lañ waaw di nuy ñëpp nag di ziar ñëpp di am mbégte ak kontaante macha allah ayca mi ngi noonu euh, comme ni ma leen ko waxee rek émission bi door na ñu nuyu nag euh, Baye assan Mesere mi nga xam ne saay su nekk rek moo ñuy teg pression ci bile émission xam naa yitteel na ko lool macha allah ayca tey nag daañu waxtaanee nag euh, kii nga xamante ne nii moo di Père la moom nag invité woon nañ ko ci num ci émission boobu di Ndoumbelane moom nag wax na ne réew mi duñ ko jox benn xusma ñàpp te moom it jàpp na ni fi mu toll nii candidat bu baax bi moom mooy. Déthié Fall daañu ci ñëw léegi léegi ci werante bi mu ci amaloon ak Serigne Saliou Guèye bu ñu ci noppee eh, jàll ci ki nga xamante ni moo di Cheikh Bara Ndiaye moom itam am na ay yu mu yëkkati jëmale ko ci keroog bi ñuy investir ki nga xamante ne ni moo di Amadou baax mu nekk candidat wu APR Mame Mbaye Niang nag am ay kàddu yu mu yëkkati ci bés boobu boobule wax ne moom ah, d'accordul benn yoon ci candidature ki nga xamante ne nii moom moo di baax jeexal jeexale ak Aïssatou Diop Fall moom nag daal di nay tans ki nga xam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 Ah barke sëñ Touba maa ko dégg ñi théoriser fi coup d'état ñu ne bu waree il faut un coup d'état coup xam nañ li muy fi def coup d'état yëpp fan lañ dem père. Eh, yaa leen gën a eh, xam. ay waaye mais leen sama candidat bi rek waxal ne leen sama candidat bi moo gën sa leen ko moo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 ni mu waxee nii waaye dafay xool parce que jàpp na ni ak Ousmane Sonko moom nekk kandidaa kenn mënu fee gaje loolu moo tax mu daa dee defagum tek day déglu nguma la ko boo gisee ku ay la ci wëndeelu kii hmm. ah xool ko fi jaar. Ah, man de affaire yi gumbala fi mu toll nii boo xefee sax. gumbala moom ngay waxtaanal léegi invité ko tey mu nekk parti bii.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 léegi li lay wax ne état bi dafa daanu ci kanamu Ousmane Sonko. Mm. mooy Mame Mbaye Niang comportement bi mu am ci ñoom euh, Macky Sall. ban comportement da leen santaas santaas wax ba ki dem ba non daf leen santaas. lan moo tax Mame Boye Diao daan ne. Mame Mbaye Niang non Mame mm-hmm. daan ne man ànduma ci candidature Amadou Ba maanaam deful 30 minutes rek ñu dàq ko. waaw Aly Ngouille Ndiaye d'accord ci dañ ko dàq. Mm-hmm. Benno Bokk Yaakaar loo xam ne du loi du dara. dañ ne woon bu kenn wax ci troisième mandat bi ñu Moustapha Diakhaté waxee dañ ko dàq Moussa Diop bi mu ji waxee dañ ko dàq mhm. Souri Kaba bi mu ji waxee dañ ko dàq mhm. pourtant Mame Mbaye Niang Benno Bokk Yaakaar dañu élire seen candidat di di di di war ko war ko defal congrès pour investir investir ko ci journée bi Mame Mbaye génn na ànduma ci kii du dara du gagné ba pare daana sensé leen ko te ba tey APR doo gis ko sax xaw lu tax mu def ko lan moo may Mame Mbaye maqaama boobu loo Ah, loolu la ñu bëri xamul nag gis nga mambay li ñuy toppee Ousmane Sonko yi xam na ne bu dee aji saar moom ba tey jii aji saar moom amul maanaam aji saar moom mooy ngelaw lu jàll aji saar mosul fanaanal Sonko kaso yàqalu ko inéligibilité am te biñ koy teg aji saar bi pour tëj ko kaso woon ak dindi éligibilité aji saar moom féete na ne dossier boobu moom Sonko def ci génn ak cent pour cent ndam mooy ba nii aji saar mënul tere Sonko nekkub candidat ba nii Sonko fanaanul kaso parce que dafa jotee aji saar dara maanaam yàqu na dossier boobu moom mooy loo xam ne état bi def na ci lépp mhm. mais yàqu na léegi nag ban dossier moo des mooy dossier Mame Mbaye Niang fii na Mame Mbaye bu ko neexoon tey bu ko waa APR dàqoon tey bu subaa mu rotti plainte bi Sonko Sonko dossier mag Sonko yàqu mu daal di jeex waaw loolu fii ne ñu bëri xamuñu su rocci woon pelentam tay tay tay tay nii maanaam bi mu neem Amadou Ba àndu mag yow xam nga moom ministre la nañ ko dàq ndax dàq ñu ko te wax ah! léegi sa dégg soo ko dàqee soo ko dàqee mu dem dindi pelent bi bu suba léegi lakkaat bi looy àtte <laughs> loolu la leen def nii di. kon da nga bëgg looloo tax Mame Mbaye am audace taxaw ne leen eh, maa ngi nii ministre la bennoo laa bokk APR laa bokk ànduma ci am. jërëjëf Aïcha mi ngi noonu moom Cheikh Bara Ndiaye nag euh, ku ñuy wax Ngoné saliw moom moo ko dalaloon euh, ci fële ci sans limite ñu leen di nuyu bu baax a baax en pensant euh, Cheikh kii Alaaji Euh, su ma déggee euh, Cheikh daal dafa mel ni euh, Mame Mbaye Niang dafa am pouvoir bu nga xamante ne nii comme ay Aly Ngouille Mame Boye Diao ñooñu mu tudd ñëpp te ñu nekkoon ci parti bi ginnaaw bu ñu waxee ci ñàkk d'accord beeg ñenn ñi wax ci candidature troisième mandat bi dañ leen dàkkoon tey Mame Mbaye dafa am pouvoir peut-être bu ñooñu amul moo ko bàyyi ci bile parti ba léegi te lu mu wax dara du ko ci fekk. waaw macha allah Cheikh Bara Ndiaye euh, def na jàngat boo xam ne jàngat bu xóot la wane na li wane tey mambay euh, di fëgg dënn pouvoir maanaam euh, nga xamante ni bi am na sañ-sañ parce que xam nañi fi mu toll nii am na fu mu teg tànkam li Cheikh Baara def nag bon xam nga dafa am ñoo xam ne suñu borom dafa leen a may maanaam buy lëndëm it ñi ngi gis lii xew ñuy làqatoog ñiy wuti pexe ngir bëgg a génn ci yenn yi parfois day baax nga gëm bàyyi leen ñu def li ngay def waaw parce que pareen saay loolu mën na nekk loo xam ne day gën ci askan wi day gën ci réew mi hmm. waaw bu nit ki di làqatu pour bëgg a génn ci la di tàppaas boo ko gisee da ko war a bàyyi parce que da ngay xool ni gis ni kii kat euh, kuy jariñ li muy def ëllëg après mën na jariñ réew mi parfois jarta yuuxu jarta leeral jaru koo kii comprendre na su ma déggee daal Mame Mbaye dafa bëgg a génn. waaw dafa bëgg génn. ci kii bi maanaam day tappaas. ok jamono ji ñuy investir Amadou Ba. le jour. mi ngi tappaas di wane ni dañu war a tànn keneen am na yu mu sànni. Mm. yoo xamante bi dafa bëgg. ñu am nu ñu doxaleeg moom wane ni yëgu ko woon nii wag ni dafa am yu mu wax léegi yooyu nag Cheikh Bara dafa waroon gëmm rek waru ko dénoncer daf ko war a bàyyee parce que bàyyi bi parce que mi ngi wut pexe pour génn ci mbir yi. mais mais alaaji génn ci mbir yi kay am na voie bu gën a normal bu gën a leer non non bu normalé du baax xam nga c'est dafa am yoo xamante ne bi nit léeg-léeg mu dugg ci mbir moo xam ne ah. bu ci génn day wut pexe ngir génn ci hmm. prétexte la Mame Mbaye soxla. Ah, ñu ne ko li nga wax waroo ko wala kenn attaque ko mu ne ah yéenay wax loolu fekk li ci bëggoon mooy génn ci bon damay retirer yi sax sama plainte comprendre na. bu ko defee affaire ba jeex. ok waaye ah, léegi nag léegi le fait que Cheikh Bara gis ko ne ko kii mën na tax mu ne ah kon li may def ndekete mi ngi kii mën na mën na tax dootu ko def. kon yow daa jàpp nga ne Cheikh Bara daf ko waroon bàyyi. ci biir war a bàyyi ci biir pareen saay booy gis ci lëndam. Mm. gis lii xew bu dee luy jariñ réew mi la bu dee lu baax la gëmmal bàyyi mi dem beneen eh, saay ñu toog son bi dama koy wax lu bari beneen saay damay ma am peut-être loo xam ne sax mën na bañ a nekk loo xam ni euh, gis naa dëgg waaye damay samay njort ne mën na demee nii hmm. ba tax na njort yooyu la plupart damay wax ne du ma ko wax ci kaw parce que bàyyi mu demee noonu mooy doon li gën parce que damay jàpp ni looloo gën ci réew mi donc boo njortoo yenn yi bon damay bàyyi noonu mu sedd parce que parfois loolu dafa baax ko dafa baax ko parce que par na saa yi loolu c'est quelque chose de très important parce que li Cheikh Bara wax lu wér la. Hmm. waaw lu wér la loo xamante ni bi tey bu Mame Mbaye roccee kii yoom donc te jox na la ay exemple yoo xamante ni bi ñoo xam ni. waxee nañ ñeneen ñu dàq leen. Aly Ngouille Aly Ngouille Moustapha Diakhaté na ñoo xamante ni donc la fait que Mame am sañ-sañ bi. Hmm. li ko def. mu am sañ-sañ bi mooy li ñu yaakaar a atte pour sonal ci son mais alaaj loolu kañ lañ koy atte tamit. puisque élection yi moom li ci des matatul. waaw mais loolu la loolu mooy li nga xamante ni bi rek mooy mbir mi loolu nga xamante ni bi moom lañ yaakaar moo tax fi mu toll nii mbay mën a waxee nu ko neex léegi nag loolu bu bu ko waxee rek après mën na nekk loo xamante ni bi euh, mën na mën na kii quoi mën na mbay mbay bon daa dee retiré wu daal di jéem a bañ bañ lu <laughs> ñu ne ko comprendre <laughs> te fekk ne jubluwaayam loolu la woon ah, waaw jubluwaayam loolu la woon quoi donc loolu mooy li nga xamante ne bi moom laa na saay booy xool mm-hmm. yàlla def la nga gis ci lëndam mm-hmm. eh, bu mbiri leeree ci yow yow bàyyil noonu rek mën nga koo wax ci suuf mën nga ko waxtaanee ak ñoo xam ci suuf mais ci kaw bu ko yëkkati bàyyil waa ji mu nekk di def ay zoom quoi comprendre nga bu demee ba kii ci yow fekk ko waaw parce que parce que ñàkk koo wax man damay jàpp ni moo ëpp doole non vraiment nag li tax euh, waa ji saawolof wax ne yow la ñu war a jox meilleur chroniqueur je sais pas xam na li tax xam na ni lii nga wax fii nii mm-hmm. ñu bëri comprendre ñu mënuñu woon comprendre loolu woon comprendre loolu lan li nga wax fii si Mame Mbaye Niang nii Cheikh Bara li mu wax xam tox su beeg jarul wax ak. waaw Cheikh Bara li wax moom. lu wér la waaye ndax pare na saa yi jar naa nga yëkkati loolu ndax. boo ko yëkkatee li muy ndax day yàq wala day defar. day defar loolu par exemple il faut peser yi teg ko ci balance xool ba xam quoi. d' accord àddina noonu daf cee baax. jërëjëf ayca mi ngi noonu ñu nag jeexalee ak ay Aïssatou Diop Fall moom nag nee na Ayib Daffé nit ku ñàkk fayda la parce que yim nangu moom pour moom jaaduwul nit di ko nangu ñu dem déglu kàddu yi mu yëkkati jëmale ko ci Ayib. Ayib Daffé yi mooy dañoo ñëw ne xaaral jël ñàkk fayda jël ñàkk fulla def ko yoon pour siiw loolu la Ayib Daffé mii def. Hmm. mooy dafa toog kalamate moo ne de ki ko meññ def lu rëy ci digg réew mi muy. Balla saa Daffé wax dëgg yàlla ma xam ko baax moom mii am na ay rakkam yoo xam ne euh, xam naa leen bu baax a baax ñu xam ma tam bu baax a baax a baax. Hmm. kon moom fi mu bokk fu baax la bokk te papaam bokk na ci tarixu politique Sénégal. waaye nag dëgg dëgg ayib dafa mi ko war a xoolaat boobu ndax ñu koy jay xam nga Sénégal dañu lay jay mm-hmm. yaa fi toj gis naa ñu koy kii ci ci internet bi tonton ayib jógoo ñu demal ñàkk loo ko fayda waye di ko mu dem taxaw dégg nga lamba démb romb naa buntu DG ya ba ba ba tàppanteeg sama rakk jooju ma koy nuyu ngoone saaliwu bu euh, sans limite dégg nga mu ba boo gis ci laa doog seeni nii sa gis en vrai ayib dafe mu mu tol saba doorom boobu taxaw ci buntu ba ci buntu DG ya nag ñàmm taxaw dégg nga ñàkk tooy xëpp froissé kanam ngaa nga ñamaañoo ay fonde feeñ si kanam gi. mu taxaw foofu dafa ñamaj taxaw. dégg nga te seenoo benn waa Pastef ñi ñi ñu ràññee xam leen ci Pastef kenn àndul ko kenn accompagné ko gis ma fa kenn ndax ñoom dafa ñu yéen a jàpp leen ñu bàyyi ay ayib mi mu bëgg siiw bëgg tuur dégg nga euh, ëpp tuur sax seen candidat. ci lu ñàkk fayda lu doyadi lu wayadi loolu nag gis nga nag dëkk nag boo fa nekkee bëgg fa tekki mm-hmm. ak loo fa bëgg a tekkee na nga ko tekki da nga ko mm-hmm. tekki la ak fayda mm-hmm. ndax la ak fayda weesu parti boo xam ne ñaata nit dafa nekk yow ku parti njël la cëralee la chaque jour del jaabante DG ya saa boo xëyee suba bàyyi sa papa bàyyi sa yaay bàyyi sa jabar bàyyi sa doom bàyyi sa lépp dem taxawaalu DG ya ñu toroxal la nga demaat taalal micro yi yow daal cinq minutes de gloire bi ngay am ñu taalal micro gars yi kokkali retaan commentaire la kokkali ñaawal la dégg nga bu subaa nga xëyaa suba dem ñàkk fay da bëgg a dee te jéemu ñoo yónni keneen ku la ci kidul yow wax dëgg fa yàlla na nit nag yaa ful la yaa ko may sa bopp mhm. sa papa ak sa yaay duñu la ko may boo ko amul lee sa bopp mais mais sama kii boo ko xoolee xam ne dëgg-dëgg ay mii moom Ousmane Sonko dafa xool bu baax nag Sonko moo mën a casting mhm. Sonko xool ñi mu yor ñëpp ràññeel leen xool bu baax a baax a baax. Oh. daañu ne ay mi mu am kanam gu ñàkk fayal boo xam ne kii kii mën naa ko yónni mu doxal ma la saal buloo mënoo taxaw nii nag xam mu tax gis nga xool dem na sax ba am ay karaw yu weex man la man ci jaabate gi muy jaabal saa bu xëy suba dem DG ya bu demee DG ñu dàq ko toroxal ko Aïcha jërëjëf euh, Modou Diouf euh, Alaaji euh, c' est que Aïssatou dafa wax lu ma neex si début bi mu ne famille papaam nit ku baax la ñu am fulla lañ ñu am fayda lañ parfois ma toog dégg la fii benn jour nga ne Ayib nag fonk na li muy def fonk liggéeyam parce que du fulla jooju ko papaam yaree moo tax tey jii nii liggéey bi mu jox ko àqam ba Aïssatou après di tudd mbirum ku ñàkk fayda si boppam. waaw xam dafa am yoo xam ni bu yàlla defee yow. xamoo ko doo ko xam doo xam valeur bi ba nga ne bu ko nit ki ñàkkee. nan la war a mel non damay expliquer ah, rek. ayib dafe ah. damay expliquer lan mooy fulla lan mooy fayda. lan mooy fayda. Mhm. fayda mooy d'abord bokk na ci buñ la joxee dara dañ naan la faydaal ko maanaam buñ la joxee liggéey da nga ci am yitte de ci am fayda. na nga ci am fulla na nga ci am fayda xam nga loolu mooy lan hmm. mooy maanaam ki nga xam ne liñ ko jox da ci wane ba nit ñi yëg ni liñ ko jox de sàgganewu ko loolu mooy fayda ay bu ko defutoon lañuy wax ne ah biñ ko ko joxee daf koo ñàkkal fayda moo taxit dara sottiwu ci liñ ko jox hmm. maanaam bu fekkonte ni tey dañ koy xaar demut dañ koy kii demut parce que loolu lañ ko bëggoon mu bañ koo fay daal mais ayib dafa xam liñ ko jox mu jox ko fayda léegi nag ay satumi li muy expliqué daf ne dafa ñàkk fayda ayib bi muy dem lambar lambar yi wut rek dem xam nga lambar lambar loolu mooy danger <laughs> loolu mooy wax joo xam ni waxu ko daanu ci sareet la maanaam boo comprendre wut yëf yi c'est que dafa war a expliquer yëf yi ni mu demee <coughs> ayib dafa dem ak décision de justice mm-hmm. kon ña doon àtte liñ doon àtte amul fu la bu fekkee ne am na fulla ak fayda. kon warul yem ci ayib kese. kon warta wax ayib kese. Mhm. ayib dañ ko jox décision de justice ayib bu njëkk bi dafa njëkk a dem ñu ne ko nekku leen ci liste yi bés boobu defe naa ci lañ yëg ni Ousmane Sonko ndekete binduñu ko ba gaa yi attaqué mbir mi mhm. justice yóbbu ko Casamance. ba ñu demee Casamance gis saba si fay àtte ñu jox ko dëgg ayib xëy wutali ak décision de justice am dem ca DG pour ñu jox ko li nga xamante ni bi mooy ay mbiram ba mu yorut kayit ga ñëwut waaye ba mu yoree kayit ga lay soog a ñëw mm-hmm. kooku ku am fayda ci li muy def la ba mu ñëwee ñu at ñëw ña nga xam ni ñoo ko doon kii di ko làqatu léegi ki ñëw jàkkaarlook yow yow ngay làqatu fan la fayda nekk ak fan la ful la ne. Oh, <laughs> fan la ne. <laughs> ngeen di dem di ko làqatu di bañ mu dugg mu dem sena hmm. Sénat ne nañ leen jox seen fiche de parrainage nañ leen jox seen fiche de parrainage. ñu xëy dàq waa Sénat yëpp. ñu ne décision bi faaw mu dem Cour suprême parce que lii ak lii. ñu dem cour suprême ayib toogaat ñu dem cour suprême cour suprême yóbbu leen ca tribunal ndakaaru ñu demaat juge ba àttewaat joxaat ko këyit ayib ñëwaat ñu wut ay policier teg lànk ne du dugg bu fekkoon ne lu ñàkk fayda lay def defe naa ni danañ doxaleeg moom neneen waaye dafa yor këyit guy firndeel ne dañ koo war a jox liñ ko war a jox ab ayib ku am fulla la ku am fayda la ndax nag ki wax ne daf koo ñàkk ndax xam na ku ko am ni mu war a mel waaw parce que am na loo xamante ni pour nga xam lan mooy fullaak lan mooy fayda pour nga xam ko dafa war a fekk nga xàmmee ko ràññatle ko est-ce que yow boo ko ràññewul li nga xam ni mooy fullaak fayda mm. parce que fayda dafa am solo ma jigéen te ayib li mu ne ñëpp dañu xam ne dafa am fayda ci li mu ne. wax na ko sax nee na ay waajuram i parents am. waaw doon daf ko tàgg ayib nag wàccut yoon woowu. moom moo war a xool wan yoon la ne. mais ayib moom mi ngi ci yoonu fulla ak fayda li muy def ku ko ciy xas ku nekkoon xamoo fulla ak fayda. déedéet parce que képp ku ne ayib dafa ñàkk fayda xamoo lan mooy fayda. defe naa ni bu fekkente ne bii ku xam fayda nga. di nga ne ah Ayib Daffé de ku am. fayda ci li muy def hmm? nee na kenn gungewu ko. waaw waaw non soxlawut kenn di ko gunge xam nga kaa ñu ànd sax day indi loolu bu day indi bu ñu ñi ñëw nga doo dem loolu da ngay ñàkkal fayda yëf yi maanaam yëf yi dafa war a nekk ci yow ngëm-ngëm nga jox ko yitte jox ko fulaak fayda ku ñëw fekk la ca hmm. soxlawut ñëpp di dem di dajaloo yooyu yëpp xeetu pour jaxase la rek daan ne waa Pastef ñëpp ñëw boo nee waa Pastef ayib mooy Pastef. Hmm. bu demee dafa représenté parti bi du waa Pastef voilà du waa Pastef loolu lañ bëggoon buñ dajale woon tamit ñu sànni leen nga ñu ne parce que warut a demee nii ñu ne waaw parce que ñeneen ña fay ñëw mm. donc en tout cas ay nit ku am fulla la ku am fayda la ci li muy def te sénégalais bu nekk lii bu ko réew mi yëpp nit ñi doon doxee ni muy doxee defe naa ne réew mi dana dem jërëjëf ñu bàyyi la nga tàggatoo waa di gërëm ñëpp di sant ñëpp di am ci ñëpp mbégte ak kontaante mm. doxante di daje incha allah beneen altine ci kàttanu borom bi. incha allah rabbi jërëjëf mi ngi noonu alaaji ñu jaajëfal ko bu baax a baax ci xalaat yu rafet yu sell yi ñu ma ko tuddee rek moom mooy expert bi ci analyse yi macha allah di jaajëfal képp koo xam ne rek yaa ngi ñu doon bàyyi xel jamono ji dañu sur di commenter way leen di abonné ci suñuy plateforme di jaajëfal itam Modou Diouf Abdou Top ak Laye Diallo ñu nekkoon ci technique bi jox leen di dajee beneen lundi ci l' émission des émissions.